théâtre nekkoon loo xam ne da doon yeete te suñu mag ñi bëggoon ko lool ndax yeete gi nga xam ne daana ko yee ndaw ñi bu ñu seetloo nag léegi yàq la gën a mën a ci yeete askan wi gis-gis biñ ci amee mooy léegi théâtre amatul. société bi moom ñun ñëpp ay sàmm lañu te li am léegi moom wax dëgg yàlla am jàpp naa ne bu avancé ñu ni borom kër yi yëpp danañ am naqar parce que day yàq xale yi man li ma gis ndax li démb moom dañuy yeete mais tey moom dañuy réeral nit ñi. parce que li ñuy wone déjà sëy même sëy yi sax dañ koy dañ koy yàq ah. parce que li nii li ñuy wone dañuy dañuy dañuy triser te doomu aadama bu yee nit ko waroo triser da nga ko war a xamal ko lii boo ko defee lii la ci fekk lii boo ko defee lii la ci fekk waaw loolu daal laa ci xam moom xam naa daal li ma gis daal moom arrangé wut société bi moom. xale yi jàngatul dara ndax dañoo concentré wu ci film yi sa tëru ndax fi mu toll nii théâtre yi amul benn bu leen um. heure bi ñuy daw ak yëpp lañ xam te bu jotee nii. mënoo leen a liggéeyloo mënoo leen a wax lu ñu def waxtu julli day jot sax mais duñ ko duñ ko tal. théâtre moom danañ ko suivre bu njëkkoon ay ñoom Baye Ili ay ñoom Sanex ah, amoon ne théâtre yu neex yu daan daw yoo xam ne série yu am solo la boo koy seetaan da ngay da lay yee quoi mais jamono yi ma gis nii théâtre yu bari day yàq xale yi parce que da ngay gis ñoo xam ne dañuy jouer loo xam ne duñ ko appliquer quoi nekkul loo xam ne mooy seen dund quoi xam nga yàq xale yi. ñu war leen a jàngal leneen te yu ci bari tamit dama ci gis lu ma naqari ndax am na séer ñuy tudd ay soxna jaara ñuy tudd ay ay mag ay tur ay Baay Faal yooyu xam nga yooyu baaxul jël tur yu baax yi di ko jouer théâtre tamit man gisuma si lu rafet loolu xeex diine laa ci gis parce que théâtre mën naa nekk ci loo xam ne danga koy def mu yee nit ki bu pare tamit euh, nit ki bu koy siifur mu mën koo jariñ xelam di nàcc wala dara mais li ma gis moom pour lu yàq xale yi la ak euh, lu leen kii lu leen suufeel mais nekkul leen jëlate am na yu yeete ku am na lu bon am na lu baax mais kenn ku ne la nga ci xool ngay gis boo ci xoolee lu bon lu bon ngay gis boo ci xoolee lu baax lu baax ngay gis. théâtre yu njëkk ya maanaam dañ daan wane lu baax di jàngale lu baax xale yeeg ak mag ñi ñëpp di ko mën a seetaan mais théâtre yi di daw léegi maanaam doy na waar lu ci ëpp day yàq li mu yàq mu ëpp li muy defar ndax gis nañ fi théâtre boo xamante nii Eh, eh, eh, jabar rey na ci jëkkëram gis nañ ci sëy yu tas gis nañ ci lu ne parce que matériel bi ñuy wan nit ñi ci théâtre bi maam loolu du dëgg te maam loolu daa dema dema dem ba xale jigéen yi ñu ci bari loolu daa dugg seen bopp ba xam ni fi mu doon nii pour nga yor jigéen sax léegi yombul sëriñ bii moom di xamle ne théâtre moom léegi yàq na suñu ndaw ñi ba tax na sax moom mi muy xamle ne réseau sociaux yi moo gën a yàq mbir mi ndax kat ñu ko seetaanu ci télé yi dem seetaan ko ci réseaux sociaux bi. bu télé jàllewul internet bi jàlle téléphone yi xam nga whatsapp yeeg yu ne xew na léegi ci bari di xew te ni mu ni ma la ko mën a misaale mooy whatsapp moom ci lay lu bare bëri di xew te seen parents duñ ko xam parce que xale bu amee ay 18 ans nga jëndal ko téléphone. mënatoo koo sil waaye parce que li muy def yow mënatoo koo bàyyi xel quoi. muy ñaan nguur gi ngir mu jël ci ay matuwaayam ndax kat lii raam ci ñag bi la jëm. gouvernement bi moo ci war a jël ay matuwaayam bu baax xam ni Sénégal bu yàqoo président de la république ak bu mën a doon Sénégal bu yàqoo moom la yàqul bu baaxee moom la baax la xam nga man li ma ci gis ak liñ ci gisee ak li ci keneen gis ñun munuñu ci dara. parce que say doom bu du ko seetaan doomi keneen di ko seetaan bu boobaa nekkul li gën daal.